mën salaamaaleykum ñu ngi ci bërëb bu tedd ah, fii ma taxaw nii sax benn bërëb bu tedd la macha allah laa ilaaha illallah gaa ngi jolli bërëbu Cheikh Ibra Cheikh Ibra mu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul yàlla yàlla yokk seen leer yàlla nañu fayal kii turandoom la Cheikh Ibra Fall la tudd Cheikh Ibra yow de war ngaa mën a ñam rek ci Cheikh Ibra ci sa turandoo. auzu billaahi mina sheytaani Mm. tey jii nag di màggal Touba. di bis bu si si yoonu Mouride. Cheikh Ibrahima Fall di doon ku taalibe bu spécial. tamit si yoonu ndax muy moom mooy Baabul Muridiin te ku dégg baabul mooy bunt ku bëgg ku ku dem si kuy si kër faw nga dugg si bunt ba pare ñu ne ko lamp tamit te ba pare moom mooy bunt bi mooy leer mooy leer kooku moom maam Cheikh Ibrahima bërëb bi tey jii boo fi ñëwee waroo fi dégg lenn lu zikrullah wala zikrullah lu akbar lay yéege fi ci yàlla ndax moo gën a kawe amul luy lu lu doomu adama di di di di gémmiñam te te te laa ilaha illallah gënu ko kawe Cheikh Ibrahima nag loolu la sàlloo ba tax mu raw ñëpp ci yoonu ci kooku mooy Cheikh Ibrahima ci sàlloo ba tax dëgg tey jii fépp foo dem boo waxee Cheikh Amadou Bamba maam Cheikh Ibrahima fekk boo Cheikh moo tax toujours rek mooy joll waaw toujours lay joll mooy joll foo fekk Baye Fall laa ilaaha illallah kese fii fii kenn waru fi ñëw di wax leneen lu dul laa ilaaha illallah lii rek lii may wax nii sax xëy na lu lu mënta ñàkk la ah, farata la waaw ñun la ko yàlla mënta ñàkk la ko yàlla may tey ci màggal ndax eh, fii boo fi ñëwee laa ilaha illallah nga fi war a dégg ba ba ba ngay génnaat amul leneen lu ñu fi war a wax. leneen lu ñu fi war a wax amul. lu dul laa ilaha illallah. ndax borom bërëb bi si loolu la sàlloo woon ba tax na tey jii mu am li mu am kooku mooy maam Cheikh Ibrahima. tey kenn mënul wax yoonu màggal bàyyi Cheikh Ibrahima. déedéet man la mënoo a ah, sëñ Bamba mënoo nga wax ci bàyyi Cheikh Ibrahima ndax tey jii maam Cheikh Ibrahima Fall tey jii da euh, dañuy faral di wax budul woon Cheikh Fall Bamba réer ba ñibbi. kenn du xam kenn du xam. Eh. kon euh, ñu ngi santaat yàlla ba nu Cheikh maam Cheikh Fall mu ñamalee si sëñ Bamba. même même kimtaan bi nga xam ne moom lañ gis sax si jumaa ji. Mhm. ci sorol bu mag bi. ga moo nekk moom lañ ko tuddee. waaw ma ndax euh, Cheikh Ibra dafa mhm. ñëwoon si sëñ Fallou. Mhm. ba maanaam bi sëñ sëñ Fallou nekkee tout mu ñëw gë bu mu gënee àdduna mu naan que sëñ bi bu nu fàtte. sëñ bi bu nu fàtte. ba nu liggéeyee jumaa ji ba pare. ba liggéey soora bi euh, sëñ Fall. dafa teg dafa teg xéewal. ni ku xam euh, soora bi ni la koy gudd. mag ñi di xalaat ku nekk. ñun lamp fa. Cheikh Ibrahima Cheikh Ibrahima Fall. kooku mooy si Cheikh Ibrahima daal maanaam ñun tuuti nañu sax di wax ay biir. Baye Fall dëgg nan la war a mel. waaw Baye Fall nag mooy ku saxoo mooy ku saxoo liggéey te jaamu yàlla. kooku mooy Baye Fall saxoo liggéey jaamu yàlla loolu mooy mandargay Baye Fall Baye Fall boo ko gisee muy dem rek di nga xam ne kii Baye Fall waaw boo ko gisee muy dox di dem di nga xam ne kii Baye Fall soxlawul muy sol sax ay ay njaxas wala leneen. Baye Fall comportement la. comportement la mm. waaw am na ñoo xam ne tey jii xëy na ay procureur lañ wala keneen ak. te ñu ngi ci laay ñu ngi si biir laay la laaj. tey jii mënoo leen mënoo leen distinguer. seen seen seen seen melo. Mm. yow Baye te boo ñëwee yor sa caméra ñëw fii wala sa micro kenn mënul xam si loolu si yow mais yaa ngi koy dund sa biir xol wax nga lu garaaw nii li nga wax nii xaw ma yëg-yëg la moo tax nga am loolu moo <laughs> ñu ñëpp ñu ànd loolu ñu yàgg di teew barke maam Cheikh Fall te seen euh, seen bi yàlla yóbbu ko fu gën a kaw incha allah